ñun ñun ñeen kese ñun ñoom moom réew mi ñoo ko bokk réew mi donc ñu jàpp ne lépp waxtaan war na ko mën a régler avant dara di am donc euh, loolu war na mën a tax tamit ñu xamaan ne réew mi su baaxee ñun la baaxal euh, également. am na ay autorités yu fi jaar am na yu fi def am na une confusion boo xam ne warul am entre le premier ministre ak la jeunesse. donc il est venu régler ça il est venu s'adresser aux jeunes. Mm. loolu mooy li am solo. Mm. et je les jeunes. quel que al fa xam nañu le président Ousmane Sonko est leur côté et fera tout pour trouver ay solution pour ñoom quoi incha allah. Euh, jërëjëf jërëjëf on est ensemble waaw jaajëf ñu dof ñu jege ñoom ah. dégg euh, seen seen droit la ñuy kaas ñoom ay ay jàmbaar lañu daan doole lañu xam. léegi nag dëkk foog ñu organiser ko eh, li ci jaarul yoon ñu jaarale ko yoon parce que looloo tax ñu fal ñi et lépp dañ koy def aussi dans l' intelligence et dans le respect parce que jeunes yooyu tey ñi fi nekk ñoo leen donc je sais que le président Ousmane Sonko dina assez de tolérance et de patience pour trouver les meilleures solutions et que jeunes yi mën a liggéey parce que jeunes yi tekki rek lañ bëgg amul dara lu méchant il faut juste trouver des solutions. doon ay kàddu yu a bref rek bi ñuy gis nii Matar moom mooy euh, commandant bi nga xam ne moom mooy aide de camp bi. donc moom la gis tout mu génn. de l'armée di ñaan nit pour que moom mu mën a génn donc euh, c'est dans l'ordre normal des choses. comme ni ñu euh, tout cas pour le moment protocole bi ñu ngi chercher les moyens. pour que président Ousmane Sonko mu mën a génn ci oto bi waxtaan ak ñi nga xamante ne nii euh, moom mooy parce que boo xoolee euh, commandant de l'aide du camp du premier ministre Ousmane Sonko moom tout chaque jour dafay génn gis nga moo ngi nii génnaat na muy euh, commandant de l'aide aide de camp bi bu premier ministre Ousmane Sonko moom la ñuy apercevoir noonu ci oto bi en attendant moom muy génn donc ñoom ñu ngi jéem a chercher ay solution pour que moom mu mën a Ousmane président Ousmane Sonko mu mën a génnee pour mën a def déclaration bi mais fu mu nekk nii xat na torop te nit ñi ku ci nekk aussi am nga impatience su xaar déclaration bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko war a def. donc donc donc c'est c'est gars yi rek la nga xam ne moom mooy sécurité bi pour en attendant Ousmane Sonko génn. waaye pour ñu wax leen rek pour lu leer euh, fi nga xam ne lañ nekk mooy Colobane jamono jii nii euh, lu koy olof di wax rek jamono ji euh, dafa bëri des mouvement de contestation ñenn ñi ñi contesté par rapport ak li nga xam ne moom moo leen métti nee nañ ñu daal di dëgër prix seen i marchandises leen dara le maire qui doit apporter des des des explications le maire Abdoulaye Paye également de l'autre côté le collectif bi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkk ñoom nee nañ dañuy Sonko est sorti dans sa voiture. Donc Ousmane euh, Sonko euh, en mode euh, chapelet, chapelet, maillot chapelet. Là, donc Ousmane Sonko est là en train, euh, lui, en, en, en, le, préfet, euh, le commandant de l'armée de terre, ànd ak également yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ànd ak moom di euh, euh, waa protocole am chef de protocole am. voilà gis ngeen ko donc Ousmane Sonko est sorti. waaw ñu jàpp ne également war na gars yi war nañu mën a. malgré li problème bi di am yëpp bi mu génnee gis nga peuple bi. dañuy noppi dañuy noppi xam nga ñuy yuuxu daam ñoom nekkul ñëpp dañu ko donc nañ def ndànk nañ def ndànk xam ne la presse la presse est en train de faire son travail. la presse est en train de faire son travail. mais mais ñu ngi buux ah bu métti. mais ndànk rek. parce que lu ñuy ragal rek mooy journaliste fu ñu taxaw sax. wóorul euh, wóorul ñu ngi bi gars yi encerclé lañu te bare sécurité bi doyul. waaw maanaam sécurité bi si boppam moom doyul. donc lu ñu mën a wax rek mooy jamono ji euh, nañ bàyyi rek xam ne Ousmane Sonko est là Ousmane Sonko est sorti ma jëm ko talal sama micro rek xool ba xam ji pour jege ko yombul yombul dara pour nga jege ko. donc Fallou da nga may euh, jëlal Ousmane Sonko di la masaw soo ba ñoo ànd malgré tout yaa ngi yaa oh, oh, oh, donc Sonko est là ah, mu ànd ak euh, ñoom Babacar euh, bu GPS. ànd ak également sa sa délégation ànd ak également li nga xam ne mooy sa ay. Euh, donc gis ngeen le commandant de l'armée de terre jamono ji moom mu ànd ak euh, protocole Ousmane Sonko wax ak moom. waa primature également sécurité ñoom tamit ñëw nañ donc lu ñu leen mën a wax mooy fii euh, jamono jii ñuy wax ak yéen tey sécurité bi si boobu lañ war nañ ko bàyyi xel avant Ousmane Sonko di ñëw ñu xool nan lañ mën a euh, euh, defaree fii ba xam ne ñëpp nañ si gaar Abass Fall yëkkati ay kàddu xamuñ ngeen kàddu lay doon ngeen kàddu yëkkati li mu koy wax dugalee suñu ak Ousseynou encore une fois Sonko Abass Fall Ousseynou waxtaan di concerté wu di xool euh, lan la ñuy wax ak askan bi walla nan la ñuy def ba trouver euh, yoon pour daal dem moo ànd ak li